salaamaaleykum les amis ak leen bu baax di leen wax ngeen di dal jàmm Sud Sport 221 ñaareelu bëccëg bu championnat bu Sénégal bi doon nañ ko tàmbali sa samedi jàpp leen nag jàmbaar ñoom ñoo daan les Samba Linguère 2 buts à jaar ci kaw les Médinois de Jaraaf daan leen 1 à 0 duel pour mi nag dañoo témboo ci diggante Sonacos de Diourbel Stade de Mbour 0 bi partout. jowante yooyee dinañ ko wóoyalee sa dimanche CNEPS moom mooy dalal Teungueth FC Guédiawaye FC Dakar Sacré-Cœur US Gorée mooy dalal AS Pikine ak Sock bi nga xam ne ñu bëri ñu koy xaar dina dox ci diggante Général Souf ak Casa Sport match boobee dinañ ko mën a suivre en direct et en exclusivité sur 2STV ma fàttali na jowante yooyee dinañ ko amal à partir de 16 h ginnaaw gi loolee ñu àddu ci wàllum mbir soko suñ gaynde yi ñoom ñoo daan daan yu yaa Uganda 10 buts à 1 loolee di leen may ñoom 3 points Égypte jaar ci kaw équipe bi nga xam ne mooy Madagascar daan ko ca teg dóor ya 4 buts à 3 ginnaaw bañ tëmbooy 4 bi partout kon Égypte moom mooy deuxième avec 1 point et nag ñun dinañ jëwante avec les Pharaons d'Égypte ce dimanche lay doon à partir de 12 onzième journée bu Bundesliga bi na ñoom ñoo jaar ci kaw Hoffenheim ca dëkkam daan ko 2 à 0 bi nag moom dugg na ca deuxième mi-temps à la 61e minute kon les Bavarois nag ñoom ñëw nañ à un point de Union Berlin bi nga xam ne mooy leader. Premier League Nottingham Forest avec un excellent Cheikh Kouyaté ñu daan Liverpool 1 à 0 kon les résidents yu ñu club ñi ci jafe-jafe ndax à l'extérieur ñoom kat amaguñu benn victoire ndax ek ñoom ñi a à 11 points bi nga xam ne mooy Arsenal. Everton ñoom ñoo daan sa Palace 3 bi à 0 aussi Gana Gueye waneeti boppam en termes de récupération les citizens avec un excellent Erling Haaland bi nga xam ne moo ama doublé contre Brighton ñu daan 3 buts à 1 loolee nag dina may la norvégien mu dugal 17e biom ci 11 match yi nga xam jot na kaa jiwante musul gis fee ca Premier Chelsea dalal club bi nga ne mooy Manchester United Hurricane Heart ñu temb un bi partout match boobee sax moo doonoon soog bi sa samedi Edouard Mendy ma nga ca baaba keppal lañ titularisé waat bu fekkee nag Koulibaly moom kat dafa absenté woon ca jiwante ba nag dafa amee gaañu gaañu bu ndaw rek ci li nga xam ne mooy zone bi ba tax na ñu koy souhaité prompt pour rétablissement. Liga Santander bi moy ka fee ca Espagne leader bi ngeen moy les merengue ñom ña ngay sen yoon ginnagi gi bañ jaaree ci kaw waa Séville daleen 3 buts à 1. jàpp leen nag la ballon d'or bi mooy kay Benzema moom jotul jogante ndax dafa amee gaañu gaañu bu ndaw rek moo tax ñu benn risque et que nag c'était l'occasion fee ca Bernabeu ñu présenté lii mooy trophée ballon d'or bi comme ni nga gisee ni ci image bi en compagnie de Zidane ak ki nga ne mooy moo di ku ci nekk coonga jël raya bu nu mel et qu'en attendant nag Barça de jiwante ce dimanche à partir de 19 contre Atletico Bilbao ci D2 anglaise bi lum jay marqué na premier but de la saison club ba mel Reading FC ñu daan 1 0 Bristol. bu ci attaquant yi kay woné bopam nak nañ ko wax moy Mbaye jañ mom nak ma ngay wéyal di ay buts lolé dina ko may mu 7e but en 9 matchs ci li nga xamné moy championnat bu Turquie bi. et nag depuis ba mu fa commencé jiwanteeg maanaam amal na fa 88 match buñ boolee bi yëpp mi ngi tollaat ci 60 but ñu ñëw wax li soxal vote yu bala d'Or mais cette fois ci waa Afrique la mooy que 20 journalistes mayoon nañ leen ñu voté et nag mën naa ne Nacho Bé a été trahi par ses siens ndax jàpp leen kat ca vote ya nii lañ ko tëralee. mu ne nag benn journaliste dong bi nga xam ne Sénégal la bàyyi ko moom moo placé Mané Vala en tête ca kaw Karim Benzema et que mën naa ne neuf yi ci des nag ñoom kat dañoo teg nañ bi ci deuxième place bi derrière Karim Benzema et que loolu kat lu assez normal étant donné que ki nga xam ne mooy Karim Benzema était hyper favori cette année. waaye nag li ñu rafetluwul mooy que ñu gis dix autres presse yi nga xam ne ay Afrique lañ bàyyeekoo supposé être très renommé en football ñu classé à la troisième wala boog pire ki nga xam ne mooy Congo ñoom ñu placé nañ ci bi voilà ci cinquième position bi mën naa ne kat loolee xel mënu kaa nangu. et que bu ñu waxoon sax yeneen continent ñoo placé nañ ci bii ci position bu nu mel et jàpp naa ne sax ñoom ils sont objectifs ndax Sadio Mané ci deuxième position lañ ko teg ginnaaw gi Benzema mais Afrique dong ngay gis ak ñoom kat nee nañ gisuñu Sadio li mu amal ci saison bi et nañ ko wax te de mooy que bu jëloon di champion ba nañ ko wax Sadio Mané mooy mérité Ballon d'Or malheureusement loolee da kaa échappé. kon mën naa ne c'est honte de leur part mais ci mën tam ñun ñu ngi sagoo Sadio Mané benn fierté la à travers geste yi ci wàllum social ak leneen li mu amal mën naa ne Sadio Mané jëlul ballon d'or mais quand même il a conquis des cœurs mën naa ne Sadio Mané mooy suñu ballon d'or ek ñu ñaanal ko mu nekk ci forme bu muccee mu montre de quoi il est capable ndax doonul deuxième par hasard ngi dem feete Qatar kat wane fa suñu bopp bu baax a baax kon les ji di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ji leen jox dig daje sur sport 221